alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 su sunnaay julli fukk la ak juróom-ñeent am na ca sunna yoo xam ne dafa woyof ba boo ko bàyyee jarul sujjóot jéggal dañ la ko am ci yoo xam ne dafa diis ba boo ko bàyyee faw nga sujjóotal ko qabla salaam soo bàyyee sujjóot ba ba teqali ko place ba sujjóot ba day yàqu julli ga yàquwaale nga dem baamu ji ko sunna yooyu nag laa lay limal dana am ci yoo xam ne danaa ci taxaw ne bii dafa xoyof boo ko bàyyee jërul sujjóot danaa taxaw ci yenn yi ne la bii dafa diis boo ko bàyyee nanga ko sujjóotal sunna yëbbi ci njëkk mooy noddu waxoon naa la ngëneel ya nekk ci noddu noddu ci boppam sunna la waaye nag moom sunnatu kifaaya la bu ko ñenn ñi defee rek mu wàcc ñenn ña waaye buñ nekkee cib dëkk wala cib gox boo xam ne kenn noddut fa dañuy dagee julli rek su boobaa waa gox ba yëpp dañuy bokk am bàkkaar waaye nag bu ca ñenn taxawee noddu rek ñi wàccee bàkkaar ba ña des ñëpp ca gox ba ak ña des ñëpp ca dëkk ba nodd googu nag mën nañoo nodd noddaat tusubaar mën nañ nodd noddaat ba muy ñetti yoon ba ñeent yàqu dara euh, duut sunna nag bit la waaye bidaa xab defee neneen la waaye duut bidaa xab def leneen naka jekk nodd ak fi woon kon buñ ko defee defaat ko rek dañoo defee neneen waaye defuñ leneen su fekkee ba tey tamit daga na noddu ñu booloo ndoor juróomi nit ñu seen baat ya ànd ñu yuuxoo ndoor rek noddu loola tamit bidaa la yonantu musuñ ko def ci jamonoom waaye ànd ak loolu lépp nag defee neneen la waaye duhut bidaa ab def leneen noddu ngëneel yu rëy ngi ci boo noddee lépp lu dégg sa baat dafa lay jégalul yàlla te tamit kuy noddu juróom-ñaari xat yu toftaloo yàlla tax ngay noddu soo lëgee boo dee suuf du lekk sa jimu kon première sunna ci julli mooy noddu moom la ñuy préparé julli gi wane neen jot na ñaareel ba mooy liqaam liqaam sunna la waaye moom mii moo gën a foor noddu ndax moo gën a jege lu foor lii di julli nodd moom bu ko ñenn ñi defee mu wàcc ñenn ña ñenn ña koy def nag jigéen waru caa bokk jigéen du noddu liqaam nag moo gën a yaatu ñii liqaam ñëpp nodduñu waaye ñu noddu ñëpp danañ liqaam benn nga liqaam sa bopp mbaa nga liqaamal rek moo tax boo julli yow kenn liqaamal soo julli ñi jiitale liqaamalal ki jiite benn liqaam nga yóbbu liqaamu ñëpp ba yóbbuwaale yow ilimaan ngi sa liqaam gi waaye nag yóbbuwaale kooku jigéen bokkut ci jigéen warta liqaamal kenn ndax baatam waaye booy julli moom kenn nag dagan na mu liqaam waaye na ko wàccee nànk nag bu ko wax ca kaw kon ñaari sunna ngoog noddu ak liqaam ñetteel bi bokk na ci sunna yi maanaam julli gi ca mbooloo ma julli moom mu jot nga def ko farata la buy tusubaar tàkkusaan timis gexe defee ko ca mbooloo ma kooka sunna la xanaa muy jullig jumaa buy jullig jumaa nag amoo benn ngànta doo mën a julli gi tusubaar de ca mbooloo ma nga war a julli ji boo ko jullee fu mbooloo ma du mën a wér mënoo toog fii ne ma julli jumaa manta ne soo amee ngant nag toogal maanaam nga julli tisbaar mu remplacé ko soo amul ngant bon rek moo tax julli ji woo fu kaawu maaliku nee nañ bala ngaa sañ a julli tisbaar xaaral ba waa jumaa julli ba pare nga door a julli tisbaar soo fekkee nga xam ngant nag bu tisbaar jotee doonte jumaa gi julleeguñ bu la neexee julli waaye boo julli woon ba pare sa ngant la teggeeku dangay dem ci jumaa gi julli gi jumaa kon julli ji ca mbooloo ma tusubaar ak takkusaan timis gee sunna la suma soo ama am doole yonentu bi ne julli mbooloo ëppee na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar salaatul jamaati afdalu min salaatil fadhi bi sabin wa ishrina daraja daana wax ne man ngéejowu naa jullig juma jullig euh, mbooloo jot tusubaar takkusaan timis mbaa gee ma xëcc kenn mu taxaw sama palaas jiite nit ña ma yolleeku nànk dem ca ña julli si wut amuñ ngànta ñoom ak seen kër ak seen alal yëpp ma lakk ko yonent bi ni mu bëree ñi yërmande bu bëggee lakk koy dundu ba lakkaalee alalam njabootam kooka lam def rëy na kon nañu julli ji ca mbooloom te nit ku nekk boo dee dañ la yóbbu ca jàkka ja di la seede lu ñu seede nag te fekk fonko woon jàkka ji jàkka ji day wax ne ñu seede dara du ca dëgg man maa ko mën a valider mu mu nekk dëgg kii kat ba muy man mosta ñëw ci man fa mën a di ngeen door ko fi indi arrière arrière maanaam football la geneen mu nekk fa ñuy seedee ka wax fekk kooka moom neexatu fa ku bëgg luñ la seedee ëllëg jàkk ji man ko valide del dem ca mbooloo ma ngay julli ci mbooloo julli mbooloo xam na solo moom laal alquran ne warka'u ma'a raaki'iin bokk na ca sunna ya ñaari rakkaa yi ngay njëkk a julli ci julleeg tusubaar mbaa tàkkusaan mbaa timis wala gee ñaari rakkaa yooya gannaaw bi fatiha jeexee nga teg ca saar saar woowa nga cay teg kooka sunna la même boo tegutoon saar te teg benn aaya tamit ba tey baax na boo ne baax na wala nga ne xaaf wala nga ne saat baax na kon daal lay tegu ca gannaaw fatiha ja ca ñaari rakkaaya yu njëkk ya loola mu tuuti mu bari daal sunna la sunna la naka noonu tamit taxawaay bi ngay taxaw ngir jàng saarwa mbaa lu huutu saarwa kooka tamit sunna la waaye maa ngi lay xamal ne noddu mi suñ ko bàyyi woon kenn du ko sujootal sunna bu xoyof la liqaam buñ ko bàyyi woon duñ ko sujootal am na ñu ne boo ko bàyyee ah, ngir ak doxa dal dafay yàq julli gi ndax kuy doxadal na bu yàggee mu doxadal farata kuy doxadal farata nag indi nga musiba gi sa bopp ñee na nga ne déedéet nag iliqaam daal ku ko bàyyi woon tëb rek kàbbaar terewut julli ga wér na te doo ko sujootal dara julli gi ca mbooloo ma na la waaye boo ko bàyyi woon julli yow kenn timit nga ni leen mbooloo moo lay faat rek waaye doo ko sujootal waaye nag lay taxaw taxawaayu saar walaw saar wa gannaaw ñaari rakkaa njëkk ya eh, gannaaw fatiha ja soo bàyyee saar woowa moom donte ci benn rakkaa nga ko bàyyi wala nga bàyyi ko ci ñaari rakkaa yëpp ñooy xatte su boobaa tamit faw nga sujjoot qabla salaam xam ne dangaa wàññi naka noonu taxawaay ba sunna la boo ko bàyyi woon danga koy sujjootal waaye yeelu ci palace bu ñu war a yeeloo nga yeelu fa tusubaar dañ koy yeelu tàkkusaan dañ koy yeelu su boobaa nag yeelu googa boo ko bàyyi woon nga dem biral ko da ngaa yokk kon da koy sujjootal ba'da salaam tusubaar ku koy julli jàng ko ca kaw mbaa ngay julli tàkkusan jàng ko ca kaw su boobaa da nga koy maanaam su jootal baada salaam su fekkee ne nag da ko jàng ca kaw moom fatiha ja yàlla dogal bi nga koy fàttaliku rukoo boo ko jàngaatee la place ba laaj tamit ca yeelu ga du tere tamit da nga sujjoot baada salaam ndax jàng fatiha ñaari yoon waaye bu doon ca saarwa nga jàng ca kaw fekk dañ koo war a yeelu nga jàngaat ko nànk dara waru ca su fekkoon ne fatiha la nga jàng benn aaya ñaari aaya ca kaw te dañ ko war a jàng nànk na ngay continuer waar rek continuer ca nànk ga rek ñaari aaya ya nga njëkk a biral jéggal nañ la ko dara nekku ko doo su jot dara kon yeelu fu ñu war a yeeloo sunna la soo ko bàyyee biral da ngay sujjoot baada naka noonu biral fu ñu war a biralee sunna la soo ko bàyyee nga yeelu ngaa wàññi da ngay sujjoot xabla tus euh, maanaam timis ak geexeeg suba dañ koo war a biral soo demee yow nga yeelu ko jàng kon nànk xéexée kon wàññi nga yow muy góor su boobaa demal nga sujjooti xabla salaam xam ne da wàññi su fekkee nag jigéen nga moom kenn waxu la ca kaw te subaa ak takkusaan ak timis ak geexeeg suba yëpp jàngal nànk yow moom bu fa nekk biral boo fi biralee yëkkati sa baat ba ca kaw da nga cee am bàkkaar bu julli nga wéree tamit am nga bàkkaar ci yëkkati nga yëkkati sa baat bi euh, naka noonu tamit euh, li gën a néew ci biral mooy yow mi wax nga dégg ko ki la méngoo tamit dégg ko lii mooy li gën a néew ci biral waaye jigéen moom kenn biral loowut ko naw na jàng nànk rek te julleem yëpp nag kon nag euh, sunna yaa ngoog bokk na ca sunna ya kabaar yi nekk ci biir julli gi mbooleem kabaar yi nekk ci biir julli sunna lañ ba mooy takbiratu ihram rek kabaar bu njëkk ngay hubbee julli gi rek moo ciy farata yi ci des yëpp sunna lañ kabaar ga nag sopp nañ boo koy def kabaaru harmal ga nga biral ko ca kaw sami allahu liman hamida xam nga ne eh, eh, waxoon naa la ko fi mu soqee ko yonentu yàlla muhammad julli na sallallahu alayhi wa ba génn àdduna aboubacar moo sa tarli benn rakkaa ci gannaaw bi benn bis mu ñëw fekk yonent bi rukkoo te rukkoo ko fekkeewut wala nga fekkee ko sa cër ya dalut bokkoo moom mu ñëw fekkee ko far cër ya dal mu sant yàlla te yàlla nag moom yàlla mu sirra wa fa yonent bi muy siggi rek jibril na ko sa borom nee na booy siggi annonceel jaam bi ko sant dégg na ko yonent bi siggi ne sami allahu liman hamida abubakar xam ne moom la mu ne ko rabbana wa ka hamdu su ko defee tamit yooya yu sami allahu liman hamida ji uh, sunna la booy julli yow kenn ñaar yëpp ngay wax benn ba di sunna benn ba ñu sopp ko mm, kon su fekkee tamit nag uh, da ngaa jiite benn bi rek ngay wax sami allahu liman hamida ñee ca gannaaw waxal la rabbana walakal hamdu ci uh, boobaa tamit dañu wax ne dañ koo sopp taaya bu njëkk bi bi nga xamee ñaar rakka war toog taaya attahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa jeex taaya booba sunna la mooy juróom-ñeenteel bi toog bi ngay toog bi nga xamee ñaar rakka war a taaya toog booba sunna la taayaam ñaareel bi bu julli ga demee ba jeex nga toog di taaya waxati attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi ba mu jeex kooku tamit sunna la toog bi ngay toog ngir taaya sunna la lu dul toog bi ngay waxe asalaamaaleykum toogaay soosa mu muy mujj ba xam ne ci lay asalaamaaleykum du dugg muy tekki ne julli ga jeex ne toogaay booba farata la asalaamaaleykum bi tamit farata la waxoon naa la ko naka noonu tamit dal nga fexe ba ponk bu ne nga dal ca kooka farata waaye nag gannaaw bi nga dalee loo ca dolleeti ca dal ba rek kooka dañuy wax ne sunna la waaye sunna bu xoyof la sunna boo def nag boobu lu ñu sopp ñoo naka noonu fukkeel baak ñeent julli ci yonantu bi ca taaya ga boo taaya taaya bu mujj ba balaa jeex na nga julli ci yonantu bi julli goo man baax na boo defee salaatu ibrahima muy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid bu paree nga ne allahuma axfir lii wali waliday wali aimatina wali man sabaqana bil imani maxfiratan asman allahuma inni asaluka min kulli xayrin saalaka minhu muhammad nabiyuka wa audu bika min kulli charrin istaasaka minhu muhammad nabiyuka allahuma axfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna rabbana atina fi dunya hasanatan ba mu jeex yëpp nga wax ko sunna la waaye sunna bu xoyof la dafa taxaw taxawaay men luñ sopp waaye taaye ba moom sunna la lii nga ci yokk nag yëpp sopp nañ ko ca fukkeel baag juróom mooy cellantalu imaam sa imaam bu la jiitee te fekk day biral mu mel ni timis ak gee déglul bul jàng loolu mooy mazhabu Malik bu yeelu nag tusubaar tàkkusaan jàngal ànd ak moom la ngay jàng bu jeexut tamit bu su jootee wala mu rukkooy bàyyi li ngay def nga rukkoo ànd moom bu su jootee nga su gën a ànd ak moom ndax alquran fu ñoo digal ne wa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fukk ba ak juróom-benneel booy sëlmal sëlmal ba sëlmal ab xeweeku ba na nga ko biral asalaamualeykum ngay wax ca kaw rawatina boo jiitee nit ña waaye tamit delloo sëlmal ci say limaan delloo sëlmal ki la féetee ndeyjoor ndeem jot na abraka rakka delloo sëlmal ki la féetee càmmooy yooyu yëpp tamit sunna la waaye sunna bu xoyof la fukk baag juróom-ñett sujjóot te ba ngay sujjóot sa peti tànk yi yaa ngi sampu sa bët woom yi yaa ngi ko sampu sa ñaari tànk yi yaa ngi ko sampu yëpp sunna la fukk baag juróom-ñeenteel nag mooy jàpp saatir booy julli fekk yow kenn nga nga ragal ku jaar ci sa kanam mbaa ngay julli nekk ilimaan nga ragal ku jaar ci sa kanam sampal saatir yow maa moom moom sa ilimaan mooy sa saatir saatir booba bëgg nañ mu toll ni ñetti xasabu ci gudduñaay fi nga koy sampu ak fi ngay sujjoot nag gàtt rek war a mën a dox ca diggante ba mu talee ni guntux na bu nekk luy yëngatu bu nekk lu taaru ba jéggi dayoo la ca gën a tuuti daal mooy talaayu guntu guddaañu xasabu sib nañ mu nekk aw doj wenn fay fay fay mel ni kuy jaamu doj sib nañ mu nekk daaba ndax luy dem la yooyu yëpp bañ nañ nga def ko fa boo ko def saatir kon nag boo jullee ti wutal loo def sa kanam boo ragalee ku jaar sa kanam yow miy julli yow kenn wala ngay ilimaan yonentu bi daana wax ne law yaalamul maaru bayna yaday musalli maasa alayhi la kaana an yaqifa arbaina mu ne su ngeen xamoon li nekk ci kuy julli nga jaar ca kanamam jana jar nga taxaw fa ñeen fukk foofu rek la yonent wax ñeen fukk rek la wax bu ko defee nag boroom xam-xam ya nekk fa di ko farañ fànke ne ñeen fukki at ñi ne ñeen fukki weer ñi ne ñeen fukki fan ñi ne ñeen fukki bis ñi ne ñeen fukki minute am ñu ne ñeen fukki seconde waaye taamim la ci balaaxa ñeen fukk daal yi mu wax matal na mboolem luy ñeen fukk mi ngi mel ne nga ne alayha tisaata achar ba yàlla ne bëkk néegu safara ya fukk ak juróom-ñeent lañ ah taxmim la fukk ak juróom-ñeent ba nga ko waxee nag abu aswad ponkal moom nga xam ne bu taxawan ci ab der nit ñu bëri ñoo daan xëcc der ba te du mën a maanaam déplacé wu mu ne ay bëkk néegi safara ya kay mën naa leen a duma man kenn rek mën naa duma fukk juróom-ñaar ña xanaa yéen xéeféer yi ci des yëpp lu ngeen lekk-lekk ndig bu ma leen dumalee fukk ak juróom-ñaar ngeen war a mën a duma ñaar ña yàlla ne hee wa na jaal naa iddatuhum illaa fitnatan lim boobu ma lim ne fukk ak juróom-ñaar la fukk ak maanaam juróom-ñeent lañ dama ko def ngir réeral leen de fukk ak juróom-ñeent mën naa nekk ci milliard mën naa nekk ci million mën naa nekk ci junne mën naa nekk ci téeméer su boobaa kon nag mu tekkee tamit ne ko fukk ak juróom-ñeent ñooña te wa maa jaal naa asxaaba naari illaa malaayikatan duñu ay nit de ay malaaka lañ te mel na malaaka mën naa duma doomu aadama yëpp. kon loolu mooy taamim bëri na lu ko yonantu bi di waxee bëri na ko alquran di waxee yonantu waxoon na ne bu ñu walee bufta ba ñëpp dee danañ tëdd ci suñ biir bàmmeel yi ñeen fukki xat ñeen fukk rek la wax ñeen fukk yooye nag foofa nelaw rek la ñëppuy def ñan ñooñ mbugal sax dañuy teggi mbugal ci ñoom xéeféere kenn du boobu ci bàmmeel ñeen fukk yooya rek moo tax koo am nelaw yu neex denc ko booba nelaw ci bàmmeel la xaj waaye xajul fii ci kaw suuf boo ne këpp këpp ak ñëwal ñi xañ ñëwal ñi reer nangam ñëwal san na ñëwal nangam diw ak diw a ngay xeex diw ak ña ngay xuloo saako ceeb bi jeex na sa gaas bi lii fooy nelawe waaye nag boo xasee dugg ci bàmmeel denc fa nelaw doo dégg kaay xañ yi doo dégg kaay reer doo dégg ana dépense bi doo dégg nañ dem tool doo dégg hubbil bitig bi doo dégg ñëwal ngi dem ci oto bi doo dégg dama jënd bee jëm siin yow nelaw rek rawatina nag ñeen fukki at yooya moom moo tax ñeen fukki at ya bu ko ñeen fukki ya bu matee ba yàlla xeexaat ñu ci suñu ba biir bàmmeel war a dekki dangay ngay dégg ñi ñi saalik nag ne man baasana min marqadina haza ana kan moo ñu xee ci suñ nelawaay bi waay place bi ñoo nelawee mu neex lool loolu mooy ñeen fukk ya ñeen fukk la yonantu bi wax benn bis ñu laaj ko abi hurayra ne ko ñeen fukk ya nag lu ci yon luñ ci mu ne leen duma leen ko wax ndax ñeen fukki at la mu ne duma leen ko wax ñeen fukki fan la mu ne duma leen ko wax ñeen fukki weer la mu a duma leen ko wax ñeen fukki na minute la wala seconde mun ne duma leen ko wax ndax yonent bi ñeen fukk rek la ñu waxoon kon ku xamoon jaar ci kanam ku julli jar na nga taxaw fa ñeen fukk law yaalamul maaru bayna yaday musalli maasa alayhi la kaana an yaqifa arbaina la yonent bi wax taamim la kon saatir ngoog dañ ko war a samp ci sa kanam waaye saatir boobu nag boo ko samput léegi-léeg nit ki jaar ci sa kanam yow yaay gàddu bàkkaar ba yow mi julli léegi-léeg doo ko samp nit jaar sa kanam moom mooy gàddu bakkar ba moom ma fa jaar léeg léeg yéen ñaar ñëpp ay gàddu bàkkaar ba léegi-léeg yéen ñaar kenn du ci am bàkkaar boo demee ci xalil dafay wax ne su fekkee ne yow mi julli mënoon ngaa samp saatir sampoo ko te fii ngay julee fi lañ faw ñi jaar fi fi la jaar man du xala aa ah, su boobaa nag yow mii yaay gàddu bàkkaar ba yow mii julli su fekkee ne nag man mii di julli fii laa mën a jullee yow mii di jaar mënoon ngaa jaar feneen fu sama kanam nga bàyyi foofa ñëw jaar sama kanam yow kenn yaay gàddu bàkkaar bi su fekkee ne mënoon naa jullee feneen yow nga mënoon a jaar feneen nga ñëw jaar sama kanam ñu ñaar ñëppay gàddu bàkkaar bi su fekkee ne fii rek laa mën a jullee yow tamit fii rek nga mën a jaar foofa moom ñu ñaar ñëpp kenn xamu ca bàkkaar loolu mi ngi mel ni jàkka ji jàkka kat ñuy julli ñëpp boo bëggee teeg ne du ma jaar sa say kanam dootoo génnati moo tax kon lu yooya euh, daruura la ak daruuraat tubihul mahzuraat lislaam xatalut ah, bi ci tegu euh, lii ma limal la fukk juróom-ñeent lañ ñoom ñi ñoom la ñuy tuddee sunnaay julli yi limal gi ko limal nag tënkuwuma ci risaalatu ibnu abi saydin alxayrawaani tënkuwuma ci sunna yi nga xam ne tamit moom la xalil limoon tënkuwuma tamit ci misbaahu salik waaye maa ngi tënku ci téere bu ñu tuddee alfiqhul maliki fii sawbihil jadid boo demee ca safha téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent muy cent quatre-vingt-quatorze dana la ko limal te nii ma la ko limalee noonu la ko indee sunna yooya nag waxoon naa la ne boo ca bàyyee liqaam wala noddu jërul su jootal boo bàyyee julli gi ca mbooloo ma jërul su jootal waaye boo bàyyee saar wala lay taxaw taxawaayu saar ca ñaari rakka yu njëkk ya faaw nga su jootal ko boo yokkoon saar mbaa luy taxaw taxawaayu saar ca ñaari rakka yu mujj ya yokk buñ konte wut la kenn du ko su jootal taxawaay bay taxaw taxawaayu saar ba ngay jàng saar taxawaay ba nga bako gannaaw fatiha ya ca ñaar rakkaayu njëkk ya da nga ko sujjootal fu ñu war a yeeloo nga biral fa da yokk da ngay baax baada fu ñu war a biralee nga yeelu fa danga ngaa wàññi da ngay sujjoot tamit xabla naka noonu kàbbaar yëpp sunu lañ boo ci bàyyee benn jarul sujjoot boo ci bàyyee ñaar jëm ñett nag boobaa nag faaw nga sujjootal ko lu ñuy tuddee xabla salaam Euh, lu mel ni sami allahu liman hamida ne nañ ku ko bàyyi moom kenn doo sujjóot waaye nag am na ñoo xam ne dañ koy yéegal ke sunnatu mu akkadaat ya ci maanaam chinaani chinaani kasaa jiimaani haddadu sunnani samaani toogaayu taaya ba boo ko bàyyee da nga am ñaari rakka wala toog taaya nga fàtte ko jug taxaw su boobaa continuer jërut toogaat comme sa loxo yeeg sa bët woom yi teqalikoo suuf bu julli ga jeexee nga sujjóot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal danga ngaa wàññi su fekkee ne nag da ngaa commencé woon a bërbëri rek teqali koo gët ak suuf nga toogaat bërbëri jooju jéggal nañ la ko jërul sujjóotal dara soo bërbëri woon nag ba teqali kook suuf dem ba taxaw war a nga fàtte ko wala nga ñàkk xam tax nga toogaat yokk nga da ngay sujjóot ba'da salaam taayaam ñaareel ba boo bàyyee toogaay ba da nga baat yañ fay jàng li gën a wér gën a siiw ci fiqoo Malik boo ko bàyyee da nga sujjoot cellantal ak ilimaan boo ko bàyyee jarul sujjoot sëlmal ba dañ koy biral boo ko biralutoon jarul sujjoot delloo sëlmal ki la féetee nday joor mbaa càmmooy ak sa ilimaan soo ko defutoon tamit doo sujjoot dara naka noonu samp sa peti tànk yeeg ba du woom yaag yooyu yëpp boo ko bàyyi woon doo sujjoot dara saatir bi ngay samp sa kanam yow mi julli yow kenn wala nga julli jiite nit ñi soo ko bàyyi woon doo su jot dara la dolleeku ca dal ba gannaaw bi nga xam ne ponk bi mat na ba pare nga dolleeku waat ca pour bëgg mu gën a dal soo ko bàyyi woon tamit doo su jot dara salaatu ala nabi gi nekk ci biir taaya ak ñaan yooya boo ca bàyyi tamit doo su jot dara kon sunna yaa ngoog ak ya su jottal sunna yaa ngoog ak yi nga xam ne tamit kenn du ko su jottal xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla ma ñëw ak yow nag ci ngëneelu julli ngëneel buñ ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee mu gën a baax soo ko bàyyi woon tamit doo ca yàq-yàqu dara doo ko sujootal lii moom la ñu tuddee maanaam man dóob ñu di ko tuddee mustahab xam naa nag suba loolu mooy nekk suñ bopp bopp darsu sunna yuñ sopp yi nag lu bëri la man na fanweer yoo xam ne kuy julli bëgg nañ nga andi ko boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla man di la yuñ sopp ki julli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayyidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 su sunnaay julli fukk la ak juróom-ñeent am na ca sunna yoo xam ne dafa woyof ba boo ko bàyyee jarul sujjóot jéggal dañ la ko am ci yoo xam ne dafa diis ba boo ko bàyyee faw nga sujjóotal ko xabla salaam soo bàyyee sujjóot ba ba teqali ko place ba sujjóot ba day yàqu julli ga yàquwaale nga dem baamu ji ko sunna yooye nag laa lay limal dana am ci yoo xam ne danaa ci taxaw ne bii dafa xoyof boo ko bàyyee jërul sujjóot danaa taxaw ci yenn yi ne bii dafa diis boo ko bàyyee na nga ko sujjóotal sunna yëbbi ci njëkk mooy noddu waxoon naa la ngëneel ya nekk ci noddu noddu ci boppam sunna la waaye nag moom sunnatu kifaaya la bu ko ñenn ñi defee rekk mu wàcc ñenn ña waaye buñ nekkee cib dëkk walla cib gox boo xam ne kenn noddut fa dañuy dagee julli rekk su boobaa waa gox ba yëpp dañuy bokk am bàkkaar waaye nag bu ca ñenn taxawee noddu rekk ñu wàccee bàkkaar ba ña des ñëpp ca gox ba ak ña des ñëpp ca dëkk ba nodd googu nag mën nañoo noddu noddaat tusubaar mën nañ noddu noddaat ba muy ñetti yoon ba ñeent yàqu dara euh, duhut sunna nag bidaa la waaye bidaa xab defee neneen la waaye duhut bidaa xab def leneen a jekk nodda gi fi woon kon buñ ko defee defaat ko rek dañoo defee neneen waaye defuñ leneen su fekkee ba tey tamit daga na noddu ñi booloo ndoor juróomi nit ñu seen baat yi ànd ñu yuuxoo ndoor rek noddu loola tamit bidaa la yonantu mosuñ koo def ci jamonoom waaye ànd ak loolu lépp nag defee neneen la waaye duxut daa ab def leneen noddu ngëneel yu rëy a ngi ci boo noddee lépp lu dégg sa baat dafa lay jéggalul yàlla te tamit kuy noddu juróom-ñaari xat yu toftaloo yàlla tax ngay noddu soo ëllëgee boo dee suuf du lekk sa jëmm kon première sunna ci julli mooy noddu moom lañuy ñu préparé julli gi wane neen jot na ñaareel ba mooy liqaam liqaam sunna la waaye moom mii moo gën a for noddu ndax moo gën a jege lu foor lii di julli nodd moom bu ko ñenn ñi defee mu wàcc ñenn ña ñenn ña koy def nag jigéen waru caa bokk jigéen du noddu liqaam nag moo gën a yaatu ñii liqaam ñëpp nodduñu waaye ñuy noddu ñëpp danañ liqaam benn nga liqaam sa bopp mbaa nga liqaamal rek moo tax boo julli yow kenn liqaamal soo julli ñi jiite leen liqaamalal ki lay jiite benn liqaam nga yóbbu liqaamu ñëpp ba yóbbuwaale yow ilimaan gi sa liqaam gi waaye nag yóbbuwaale googa jigéen bokkut ci jigéen warta liqaamal kenn ndax baatam awra waaye booy julli moom kenn nag dagan na mu liqaam waaye na ko wàccee nànk nag bu mu ko wax ca kaw kon ñaari sunna ngoog noddu ak liqaam ñetteel bi bokk na ci suna yi maanaam julli gi ca mbooloo ma julli moom mu jot nga def ko farata la buy tusubaar tàkkusaan timis gexe defee ko ca mbooloo ma kooka sunna la xanaa muy jullig jumaa buy jullig jumaa nag amoo benn ngànta doo mën na julli gi tusubaar de ca mbooloo ma nga war a julli ji boo ko jullee fu dul mbooloo ma du mën a wér mën a toog fi ne ma julli jumaa manta ne soo amee ngant nag toogal maanaam nga julli tisbaar mu remplacé ko soo amul ngant bon rek moo tax julli ji woo fu kaawu maaliku yi ne nañ bala ngaa sañ a julli tisbaar xaaral ba waa jumaa gi julli ba pare nga door a julli tisbaar soo fekkee nga xam ngànt nag bu tisbaar jotee doonte jumaa gi jullee guñ bu la neexee julli waaye boo julli woon ba pare sa ngànt la teggeeku da ngay dem ci jumaa gi julli gi kon julli ji ca mbooloo ma tusubaar ak tàkkusaan timis gee sunna la sunna su ama am doole yonentu bi ne julli mbooloo ëppee na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar salaatul jamaati afdalu min salaatil fadhi bi sabin wa ishrina daraja daana wax ne man ngéejuhu naa jullik juma jullik euh, mbooloo jot tusubaar tàkkusaan timis mbaa gee ma xëcc kenn mu taxaw sama sama place jiite nit ña ma yolleeku nànk dem ca ñu julli si wut amuñ ngànta ñoom ak seen kër ak seen alal yëpp ma lakk ko yonent bi ni mu bëree ñi yërmande bu bëggee lakk koy dundu ba lakkaalee alalam ak njabootam kooka lam def rëy na kon nañu julli ji ca mbooloom te nit ku nekk boo dee dañ la yóbbu ca jàkka ja di la seede lu ñu seede nag te fekk fonkoo woon jàkka ji jàkka ji day wax ne liñ seede dara du ca dëgg man maa ko mën a valider mu mu nekk dëgg kii kat ba muy man mosta ñëw ci man fa mën a di ngeen ko fi indi arrière arrière mu maanaam football la geneen jëmu nekk fa ñuy seedee ka wax fekk kooka moom neexatu fa ku bëgg luñ la seedee ëllëg jàkka ji man koo valider del dem ca mbooloo ma ngay julli ji mbooloo julli mbooloo xam na solo moom la alquran ne warka'u ma'a raaki'iin bokk na ca sunna ya ñaari rakkaa yi ngay njëkk a julli ci julleeg tusubaar mbaa tàkkusaan mbaa timis wala gee ñaari rakkaa yooya gannaaw bi fatiha jeexee nga teg ca saar saar woowa nga cay teg kooka sunna la même boo tegutoon saar te teg benn aaya tamit ba tey baax na boo ne woon muddahaamataani baax na wala nga ne qaaf wala nga ne saat baax na kon daal lay tegu ca gannaaw fatiha ja ca ñaari rakkaaya yu njëkk ya loola mu tuuti mu bari daal sunna la sunna la naka noonu tamit taxawaay bi ngay taxaw ngir jàng saar wa mbaa lu huutu saar wa kooka tamit sunna la waaye maa ngi lay xamal ne noddu mi suñ ko bàyyi woon kenn du ko sujjóotal sunna bu xoyof la liqaam buñ ko bàyyi woon duñ ko sujjóotal am na ñu ne boo ko bàyyee Euh, ngir doxa dal dafay yàq julli gi ndax kuy doxa doxadal sunna bu yàggee mu dal farata kuy doxadal farata nag indi nga musiba gi sa bopp ñee na nga ne déedéet nag iliqaam daal ku ko bàyyi woon tëb rek kàbbaar terewut julli ga wér na te doo ko sujootal dara julli gi mbooloo ma sunna la waaye boo ko bàyyi woon julli yow kenn timit nga mbooloo moo lay faat rek waaye doo ko sujootal waaye nag lay taxaw taxawaayu saar walaw saar wa gannaaw ñaari rakkaa yu njëkk ya E, ganaaw fatiha ja soo bàyyee saar woowa moom donte ci benn rakkaa nga ko bàyyi wala nga bàyyi ko ci ñaari rakkaa yëpp ñooyam xatte su boobaa tamit faw nga sujjoot xabla salaam xam ne danga wàññi naka noonu taxawaay ba sunna la boo ko bàyyi woon da koy sujjootal waaye yeelu ci place bu ñu war a yeeloo nga yeelu fa tusubaar dañ koy yeelu tàkkusaan dañ koy yeelu su boobaa nag yeelu googa boo ko bàyyi woon nga dem biral ko da ngaa yokk kon da nga koy sujootal ba'da salaam te subaar ko koy julli jàng ko ca kaw mbaa ngay julli tàkkusaan jàng ko ca kaw su boobaa da nga koy euh, maanaam sujootal ba'da salaam su fekkee ne nag danga nga jàng ca kaw moom fatiha ja yàlla dogal bi nga koy fàttaliku rukoo boo ko jàngaatee la place ba laaj ca yeelu ga tere tamit da nga sujjoot ba'da salaam ndax jàng fatiha ñaari yoon waaye bu doon ca saar wa nga jàng ca kaw fekk dañ koo war a yeelu nga jàngaat ko nànk dara waru ca su fekkoon ne faatiha la nga jàng benn aaya ñaari aaya ca kaw te dañ ko war a jàng nànk na ngay continuer waat rek continuer ca nànk ga rek ñaari aaya ya nga njëkk a biral jéggal nañ la ko dara nekku ko doo su jot dara kon yeelu fu ñu war a yeeloo sunna la soo ko bàyyee biral da ngay sujjoot baada naka noonu biral fu ñu war a biralee sunna la soo ko bàyyee nga yeelu ngaa wàññi da ngay sujjoot xabla tus maanaam timis ak geexeeg suba dañ koo war a biral soo demee yow nga yelu ko jàng ko nànk xéexée kon wàññi nga yow muy góor su boobaa demal nga sujjooti xabla salaam xam ne da wàññi su fekkee nag jigéen nga moom kenn waxu la ca kaw tu subaa ak tàkkusaan ak timis ak geexeeg suba yëpp jàngal nànk yow moom bu fa nekk biral boo fi biralee yëkkati sa baat baa ca kaw da nga cee am bàkkaar bu julli nga wéree tamit am nga bàkkaar ci yëkkati nga yëkkati sa baat bi euh, naka noonu tamit euh, li gën a néew ci biral mooy yow mi wax nga dégg ko ki la méngoo tamit dégg ko lii mooy li gën a néew ci biral waaye jigéen moom kenn biral looxut ko na na jàng nànk rek te julleem yépp nag kon nag euh, sunna yaa bokk na ca sunna ya kabaar yi nekk ci biir julli gi mbooleem kabaar yi nekk ci biir julli sunna lañ ba mooy takbiratu ihram rek kabaar bu njëkk ngay ubbee julli gi rek moo ciy farata yi ci des yëpp sunna lañ kabaar ga nag sopp nañ boo koy def kabaaru harmal ga nga biral ko ca kaw sami allahu liman hamida xam nga ne eh, eh, waxoon naa la ko fi mu soqee ko yonent yàlla muhammad julli na sallallahu alayhi wa sallam ba génn àdduna aboubacar moo sa tardi benn rakkaa ci gannaaw yonent bi benn bis mu ñëw fekk yonantu bi rukkoo te rukkoo ku ko fekkeewut wala nga fekkee ko sa cër ya dalut bokkoo moom mu ñëw fekkee ko far cër ya dal mu sant yàlla te yàlla nag moom yàlla mu sirra wa axfa yonantu bi muy siggi rek jibril na ko sa borom nee na booy siggi annonceel jaam bi ko sant dégg na ko yonantu bi siggi ne sami allahu liman hamida aboubacar xam ne moom la mu ne ko rabbana walakal hamdu su ko defee tamit yooya sami allahu liman hamida ji uh, sunna la booy julli yow kenn ñaar yëpp ngay wax benn ba di sunna benn ba ñu sopp ko mm, kon su fekkee tamit nag uh, da jiite benn bi rek ngay wax sami allahu liman hamida ñee ca gannaaw waxal la rabbana walakal hamdu ci boobaa tamit dañu wax ne dañ koo sopp taaya bu njëkk bi bi nga xamee ñaar rakka war a toog taaya attahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu jeex taaya booba sunna la mooy juróom-ñeenteel bi toog bi ngay toog bi nga xamee ñaar rakka war taaya toog booba sunna la taayam ñaareel bi bu julli ga demee ba jeex nga toog di taaya waxati attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi ba mu jeex kooku tamit sunna la toog bi ngay toog ngir taaye sunna la lu dul toog bi ngay wax asalaamaaleykum toogaay soosa mu muy mujj ba xam ne ci lay asalaamaaleykum du dugg muy tekki ne julli ga jeex ne toogaay booba farata la asalaamaaleykum bi tamit farata waxoon naa la ko naka noonu tamit dal nga fexe ba ponk bu ne nga dal ca kooka farata waaye nag gannaaw bi nga dalee loo ca dolleeti ca dal ba rek kooka dañuy wax ne sunna la waaye sunna bu xoyof la sunna boo def nag boobu lu ñu sopp ñooyam xatte naka noonu fukkeel baak ñeent julli ci yonantu bi ca taaya ga boo taaya taaya bu mujj ba balaa jeex na nga julli ci yonantu bi julli goo man baax na boo defee salaatu ibrahima yi muy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid bu paree nga ne allahuma xfir lii wali waliday wali aimatina wali man sabaqana bil imani maxfiratan asman allahuma inni asaluka min kulli xayrin saalaka minhu muhammad nabiyuka wa audu bika min kulli charin istaasaka minhu muhammad nabiyuka allahuma xfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna rabbana naa fi dunya xasanatan ba mu jeex yëpp nga wax ko sunna la waaye sunna bu xoyof la dafa taxaw taxawaay men luñ sopp waaye taaye ba moom sunna la lii nga ci yokk nag yëpp sopp nañ ko ca fukkeel baag juróom mooy cellantalu imaam sa imaam bu la jiitee te fekk day biral mu mel ni timis ak gee déglul bul jàng loolu mooy mazhabu Malik bu yeelu nag tusubaar tàkkusaan jàngal ànd ak moom la ngay jàng bu jeexut tamit bu sujjootee wala mu rukkooy bàyyi li ngay def nga rukkoo ànd ak moom bu sujjootee nga sujjoot ànd ak moom ndax alquran fu ñoo digal ne wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun fukk ba ak juróom-benneel booy sëlmal sëlmal ba sëlmal ab xeweeku ba na nga ko biral asalaamualeykum ngay wax ca kaw rawatina boo jiitee nit ña waaye tamit delloo sëlmal ci say limaan delloo sëlmal ki la ndeyjoor ndem jot na ab rakka delloo sëlmal ki la féetee càmmooy yooyu yëpp tamit sunna la waaye sunna bu xoyof la fukk ba ak juróom-ñett sujjóot te ba ngay sujjóot sa peti tànk yi yaa ngi samp sa bët woom yi yaa ngi samp sa ñaari tinq yi yaa ngi ko samp yooyu yëpp sunna la fukk ba juróom-ñeenteel nag mooy jàpp saatir booy julli fekk yow kenn nga nga ragal ku jaar ci sa kanam mbaa ngay julli nekk ilimaan nga ragal ku jaar ci sa kanam sampal saatir yow maa moom moom sa ilimaan mooy sa saatir saatir booba bëgg nañ mu toll ni ñetti xasabu ci guddu ñaay fi nga koy samp ak fi ngay sujjóot nag gàtt rek war a mën a dox ca diggante ba mu talee ni guntux na bu mu nekk luy yëngatu bu mu nekk lu taaru ba jéggi dayoo la ca gën a tuuti daal mooy talaayu guntu guddaañu xasabu sib nañ mu nekk doj wenn fay fay mil fay mel ni kuy jaamu doj sib nañ mu nekk daaba ndax luy dem la yooyu yëpp bañ nañ nga def ko fa boo koy def saatir kon nag boo jullee ti wutal loo def sa kanam boo ragalee ku jaar sa kanam yow muy julli yow kenn wala ngay ilimaan yonentu bi daana wax ne law yaalamul maaru bayna yaday musalli maasa alayhi la kaana an yaqifa arbaina mu ne su ngeen xamoon li nekk ci kuy julli nga jaar ca kanamam jana jar nga taxaw fa ñeen fukk foofu rek la yonent wax ñeen fukk rek la wax bu ko defee nag boroom xam-xam ya nekk fa di ko farañ fànke ne ñeen fukki at ñi ñeen fukki weer ñeen fukki fan ñi ne ñeen fukki bis ñi ne ñeen fukki minit am ñu ne ñeen fukki seconde waaye taamim la ci balaaxa ñeen fukk daal yi mu wax matal na mboolim luy ñeen fukk mi ngi mel ne nga ne alayha tisaata achar ba yàlla ne bëkk néegu safara ya fukk ak juróom-ñeent lañ ah taxmiim la fukk ak juróom-ñeent ba nga ko waxee nag abu aswad ponkal moom nga xam ne bu taxawoon ci ab der nit ñu bëri ñoo daan xëcc der ba te du mën a maanaam déplacé wu mu ne ay bëkk néegi safara ya kay mën naa leen a duma man kenn rek man naa duma fukk ak juróom-ñaar ña xanaa yéen xéeféer yi ci des yëpp lu ngeen lekk-lekk ndigg bu ma leen dumalee fukk ak juróom-ñaar ngeen war a mën a duma ñaar ña yàlla ne hee wa maa jaal naa illa fi fitnatan lim boobu ma lim ne fukk ak juróom-ñaar la fukk ak maanaam juróom-ñeent lañ dama ko def ngir réeral leen de fukk ak juróom-ñeent mën naa nekk ci milliard mën naa nekk ci million mën naa nekk ci junne mën naa nekk ci téeméer su boobaa kon nag mu tekkee tamit ne ko fukk ak juróom-ñeent ñooña te wa maa jaal naa asxaaba naari ilaa malaayikatan ay nit de ay malaaka lañ te na malaaka mën naa duma doomu aadama yëpp kon loolu mooy taamim bëri na lu ko yonantu bi di waxee bëri na ko alquran di waxee yonantu waxoon na ne bu ñu walee bufta ba ñépp dee danañ tëdd ci suñ biir bàmmeel yi ñeen fukki xat ñeen fukk rek la wax ñeen fukk yooyee nag foofa nelaw rek la ñëppuy def ñen doon mbugal sax dañuy teggi mbugal ci ñoom xéeféere kenn du leen mbugal heure boobu ci bàmmeel ñeen fukki yooya nelaw rek moo tax koo am nelaw yu neex den ko ba booba nelaw ci bàmmeel la xaj waaye xajul fii ci kaw suuf boo ne këpp këpp ñooy ñëwal ñi xañ ñëwal ñi reer nangam ñëwal san na ñëwal nangam diw ak diw ngay xeex diw ak ña saako ceeb bi jeex na sa gaz bi lii fooy nelawee waaye nag boo xasee dugg ci bàmmeel denc fa nelaw doo dégg kaay xañ doo dégg kaay reer doo dégg ana dépense bi doo dégg nañ dem tool doo dégg hubbil bitik bi doo dégg ñëwal ñu dem ci oto bi doo dégg dama jënd bee jëm siin yo nelaw rek rawat na nag ñeen fukki at yooya moom moo tax ñeen fukki at ya bu ko ñeen fukki ya bu matee ba yàlla xeexaat eh, eh, ñu ci suñu ba biir bàmmeel ñi war a dekki da ngay dégg ñi ñi saalig nag ne man baasana min marqadina haza ana kan waay moo ñu xee ci suñ nelawaay bii waay place bi ñoo nelawee mu neex lool loolu mooy ñeen fukk ya ñeen fukk la yonantu bi wax benn bis ñu laaj ko abi hurayra ne ko ñeen fukk ya lu ci luñ ci namm mu ne leen duma leen ko wax ndax ñeen fukki at la mu ne duma leen ko wax ñeen fukki fan la mu ne duma leen ko wax ñeen fukki weer la mu a duma leen ko wax ñeen fukki naan minute la wala seconde mu ne duma leen ko wax ndax yonent bi ñeen fukk rek la ñu waxoon kon ku xamoon jaar ci kanam ku julli jar na nga taxaw fa ñeen fukk law yaalamul maaru bayna yaday musalli maasa alayhi la kaana an yaqifa arbaina la yonent bi wax taamim la kon saatir ngoog dañ koo war a samp ci sa kanam waaye saatir boobu nag boo ko sampu léegi-léeg nit ki jaar ci sa kanam yow yaay gàddu bàkkaar ba yow miy julli léegi léeg doo ko samp nit jaar sa kanam moom mooy gàddu bàkkaar ba moom ma fa jaar léegi léeg yéen ñaar ñëpp ay gàddu bàkkaar ba léegi-léegi yéen ñaar kenn du ci am bàkkaar boo demee ci xaliil dafay wax ne su fekkee ne yow mi julli mënoon ngaa samp saatiir sampoo ko te fii ngay jullee fi lañ faw ñu jaar fi fi la ñu jaar man du xala ah su boobaa nag yow mii yaay gàddu bàkkaar ba yow mii julli su fekkee ne nag man mii di julli fii laa mën a jullee yow mii di jaar mënoon ngaa jaar feneen fu dul sama kanam nga bàyyi foofa ñëw jaar sama kanam yow kenn yaay gàddu bàkkaar bi su fekkee ne mënoon naa jullee feneen yow nga mënoon a jaar feneen nga ñëw jaar sama kanam ñun ñaar ñëppay gàddu bàkkaar bi su fekkee ne fii rek laa mën a jullee yow tamit fii rek nga mën a jaar. foofa moom ñu ñaar ñëpp kenn xamul ca bàkkaar loolu mi ngi mel ni jàkka ji jàkka ji kat ñuy julli ñëpp boo leen bëggee teeg ne du ma jaar sa say kanam dootoo génnati moo tax kon lu yooya euh, daruura la ak daruuraat tubihul mahzuraat lislaam a ah, bi ci tegu ah, lii ma limal la juróom-ñeent lañ ñoom ñi ñoom lañuy tuddee sunnaay julli yi limal gimale ko limal nag tënkuwuma ci risalatu ibnu abi saydin alxayrawaani tënkuwuma ci sunna yi nga xam ne tamit moom la xalil limoon tënkuwuma tamit ci misbaahu salik waaye maa ngi tënku ci téere bu ñu tuddee alfiqhul maliki yi fii sawbihil jadid boo demee ca safha téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 194 dana la ko limal te nii ma la ko limalee noonu la ko indee sunna yooya nag waxoon naa la ne boo ca bàyyee liqaam wala noddu jërul su jootal boo bàyyee julli gi ca mbooloo ma jërul su jootal waaye boo bàyyee saar wala lay taxaw taxawaayu saar ca ñaari rakkaa yu njëkk ya faaw nga su jootal ko boo yokkoon saar mbaa luy taxaw taxawaayu saar ca ñaari rakkaa yu mujj ya yokk buñ konte la kenn du ko su jootal taxawaay bay taxaw taxawaayu saar ba ngay jàng saar taxawaay ba nga bako gannaaw fatiha ca ñaar rakkaayu njëkk ya danga nga ko sujjootal fu ñu war a yeeloo nga biral fa danga yokk da ngay baax da fu ñu war a biralee nga yeelu fa danga wàññi dangay ngay sujjoot tamit xabla naka noonu kàbbaar yëpp sunu lañ boo ci bàyyee benn jarul sujjoot boo ci bàyyee ñaar jëm ñett nag boobaa nag faaw nga sujjootal ko lu ñuy tuddee xabla salaam Euh, lu mel ni sami allahu liman hamida ne nañ ko ko bàyyi moom kenn doo sujjóot waaye nag am na ñoo xam ne dañ koy yéegal ke sunnatu mu akkadaat ya ci maanaam chinaani chinaani kasa jiimaani haddadu sunani samaani toogaayu taaya ba boo ko bàyyee da nga am ñaari rakka wala toog taaya nga fàtte ko jug taxaw su boobaa continuer jërut toogaat comme sa loxo yeeg sa bët woom yi teqalikoo naag suuf bu julli ga jeexee nga sujjóot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal danga ngaa wàññi su fekkee ne nag da ngaa commencé woon a bërbëri rek teqali koo ak suuf nga toogaat bërbëri jooja jéggal nañ la ko jarul sujjóotal dara soo bërbëri woon nag ba teqali kook suuf dem ba taxaw wara a nga fàtte ko wala nga ñàkk xam tax nga toogaat yokku nga da ngay sujjóot ba'da salaam taayaam ñaareel ba boo bàyyee toogaay ba da nga sujjóot baat yañ fay jàng li gën a wér gën a siiw ci fiqoo Malik boo ko bàyyee danga nga sujjoot cellantal ak ilimaan boo ko bàyyee jarul sujjoot sëlmal ba dañ koy biral boo ko toon jarul sujjoot delloo sëlmal ki la féetee nday joor mbaa càmmooy ak se ilimaan soo ko defutoon tamit doo sujjoot dara naka noonu samp sa peti tànk yeeg ba du duwoom yaag yooyu yëpp boo ko bàyyi woon doo sujjoot dara saatir bi ngay samp sa kanam yow mi julli yow kenn walla nga julli jiite nit ñi soo ko bàyyi woon doo sujjoot dara la dolleeku ca dal ba gannaaw bi nga xam ne ponk bi mat na ba pare nga dolleeku waat ca pour bëgg mu gën a dal soo ko bàyyi woon tamit doo sujjoot dara salaatu ala nabi gi nekk ci biir taaya ak ñaan yooya boo ca bàyyi tamit doo sujjoot dara kon sunna yaa ngoog ak ya ñuy sujjootal sunna yaa ngoog ak yi nga xam ne tamit kenn du ko sujjootal xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kattanal yàlla ma ñëw ak yow nag ci ngëneelu julli ngëneel buñ ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee mu gën a baax soo ko bàyyi woon tamit doo ca yàq-yàqu dara doo ko sujjootal lii moom la ñu tuddee maanaam mandóob ñu di ko tuddee mustahab xam naa nag suba loolu mooy nekk suñ bopp bopp darsu sunna yuñ sopp yi nag lu bëri la mat na fanweer yoo xam ne kuy julli bëgg nañ nga indi ko boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla man di la yuñ sopp ki julli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.